Sénégal Plus. tournons tournons sant yàlla bu baax a baax. bien vrai que ak bàcc ba sàmm amul différence bu bari mais je préfère Ousmane Ba parce que ñu bëri moom la ñu xam. suñu demee action damay nekk ci biir damay nekk ci biir manam limay def te man li ma koy def li koy sentir. comprendre mais bu ñu coupé après da ngay daal ne ci leneen action daal moom gënal man. bu ma nekkee derrière l'écran foofu sama liggéey dama koy sentir li may def muy électro bi may liggéey yaa ngi comprendre vite fait nii nii jékki-jékki ñu ne la eh saa lumière bi eh dugal fii gënal fii nga dem ñëwaat boo nekkee ci kanamu écran bi foofu tam c'est la même chose parce que hmm, li may def foofu bëgg naa ko trop li may def ci écran bëgg naa ko trop muy euh, muy acting bi bëgg naa ko daal bëgg naa trop man lu may def ma ci jël sama xel quoi waaw parce que euh, loolu mooy avantage mais à chaque fois nga jël sa xol loolu mën na la indil ay yeneen coono moo tax je préfère tànn sama xol mooy nit fas maaw c'est très Baye Fall ndax moom jekk ba ni ma ma nekkee xale ba ni may màggee musuma takk ay chaîne musuma takk ay jaar Baye Fall ma def sama asmaaw njaab bien vrai que bi la cinéma ba su duggee yàggul mais j'aime bien ce naa ko trop trop trop te su ma sayoon tamit euh, dinaa dem ba ñu may dégg ci yeneen production yu dul ay production sénégalais ko oh. électro la j'aime bien ce métier dama nekk expliquer benn affaire parce que bo xolé suñu euh, fin karma lancement saison fin saison bi ak premier épisode euh, emprise dañoo wo acteur karma yi man ci ñuy yéeg ci laa bokk yaa comprendre ba pap Sidi ne tamit ne eh, ñi euh, technicien karma yi ñi ñuy man ma présenté ci kanam parce que mom foogul won man électro la ba mu ne ma ma sàmm technicien karma la ñu woo ko man technicien karma ci la bok moo tax man bon sama liggéey foog naa ko trop bëgg naa technicien bëgg naa waaw loolu amul laaj loolu amul xalaat café Touba rek parce que moom laay naan suñu kër café Touba laa fay segg su ma génnee si mbedd bi café Touba laay naan affaire daal café Touba la je préfère gore boo goree da ngay am ngor yaa ngi wax bu fekkee da ngaa gore da ngay am ngor te nit ki boo goree mooy dimbali ci yu bari taal day xaw a doy ci man man daal je préfère fu ma fekk yu tàkk mu fay ko wesuwaar fii nii kii rek jaar jaar la quoi mais mbaaw foo lépp xewee moo jóge mbaaw baanaam sama yaay baanaam sama papa baanaam sama mag bu jigéen baanaam suñu waa kër Eh, man nag naka jekk ay polygame maanaam ay jabar yu bari maanaam musul ne samay affaire mais nag li yàlla def kenn xamul mais man je préfère man Ousmane Ba benn jabar loolu laa préféré mais li yàlla def ay mbiram kenn xamul jigéen da nga war a bëri saay-saay maanaam di def lii di def lee réewantu fii jaar fee capricieuse quoi koo xam ne maanaam da lay fekk nga toog mu naaw sa kaw wala mu fekk la ngay def benn affaire bu sotti la ndox yooyu affaire yooyu noonu yoo xam nga yëfu réewande yooyu noonu daal man je préfère capricieuse quoi mais bu bu jalousé maanaam am na jigéen ñi xam bu ñu xasee ba ba bëgg la ba ba ba ba fiir mun nañ laa rey añ maanaam loolu lay fekk nga nekk sa digg liggéey boo posé añ ba suur naan sa ndox teguwaat ci waat mais bu fekkee reer boo reeree pare doo bëgg lu mu tëj la te man liggéey bu may liggéey nii guddi gi laa gën a ko que bëccëg moo tax ma nekkee xale ba léegi yaakaar naa ku ma xam ne subu kañ nag doo ma daan daa loolu ku ma xam loolu nga ma xamee quoi subu kañ bu naa ko trop am am xam-xam ñaari baax de maanaam boo amee xam-xam te amoo am-am tamit dina xaw a doy waar trop te te te jamono juñ toll nii am-am am na solo trop. waaw parce que euh, soxla yi bari na te fi ñu toll nii bu fekkee amoo am-am lu bëri doo ko mën def doo mën a tabax doo mën a yor seen waajur bu fekkee da nga am njaboot doo yor. doo mën dawal ci oto yu baax yi te dafa bokk ci dund dund ci dund nit ki maanaam moo tax xam baax na am am baax fekkee nit ki da ko bëgg te moom bëgguloo retour loolu amul njëriñ man laa ko jàpp bu fekkee nit bëgg na la ba mu sentir ba nga kii nit kat bëgg na la ko retour yow mënu ko bëgg loolu du pertement quoi bu fekkee nit ki da nga ko bëgg di ci sonn moom bëggu la loolu égal zéro

émission yi maa ngi sonal woon day tàng ma ak moom noonu la fa demee avant tournage day métti après tournage day métti non Abdou du mun a am jàmm si man Abdou du mun a am jàmm si man sax moo tax jigéen ñi di toroxal te te <laughs> ñooy suñu yaay ñooy suñuy jabar ñooy suñuy doom ñooy suñuy mag ñooy suñuy mais Abdou foo ko fekk mu ngi jàpp xale jigéen di toroxal ut ay xaalis yoo xamante ne kenn xamul fu mu jógee moo tax maag Abdou Kébé cinquantième saison du du du am jàmm man su ma soloon sax tey caay dama koy sol li ko sol ak ay kii seen daaw italien bi tudd sax yéen yooyu ngeen sol noonu ay mocassin te te te dinaa ci génne ay issue yu garaaw barki Serigne Touba leer laa wax moo tax je préfère caaya te dinaa modern moderniser caaya waaw dinaa ko def euh, de telle sorte par exemple ñu bëri ngeen mun fa ah <laughs> ñuul ku fi laa koy waxee nag ah man damaa bëgg lu ñuul parce que am na am na ñuul yoo xamante ne maanaam day mel ni muy waaj a xëm xam nga li nga xam ne seen yëppay ñuul boo la xoolee seen bëri ngay gis ak seen bëñ yi kese man yëpp man loolu bëgg naa ko trop trop trop trop ñuul ku bëgg naa ko trop xëy na ñu xees nañ kii waa luy wax ñi nee ma graaw quoi man bëgg naa lu ñuul trop franchement xaw ma li xees la xaw yaa ngi gis sama Sam Fall li ma defoon ci épisode ba Thierno Gow Thierno Sam Fall boobu am na lu bëri parce que dama lay expliquer benn anecdote ah, Sam Fall boobu noonu dafa benn sama waajoo xamante ne dafa nekk Sëñ Abdou Karim dafa jël Sam yooyu noonu enregistré ah, ko si portable am da war ko Sëñ Abdou Karim yaa ngi wax ji léegi maanaam loolu moo may tey buntu tey ba su ma demee foofu noonu maanaam bu ñëwee Sëñ Abdou Karim par exemple bàcc ma Sam mu fi maanaam maa ko mu ñëw lumayan benn borom baax la ilaha illallah la ilaha illallah yoo xamante ne su ma koy def fi ba suba mën naa koy jàpp di ko daaj rek parce que def dama ñuy bopp sama biir xol ba saison 3 Karma dina doy waar xaw ma nag lu gaa yi di bind mais boobu xam naa ne Bathie Massamba dina ci saf saf ñu bëri xam naa ñu bëgg a découvrir Bathie Massamba fu mu jógee Bathie Massamba kuy yaayam kuy papam ba xam Bathie Massamba day am gel wala day doxaan wala nangam sàngam fu Bathie Massamba jógee maanaam ñu bëri dañu bëgg a découvrir instant boobu noonu na na la fay demee moo tax xam naa ne saison 3 bi dina doy waar dina am ay yeneen jàpp ay yeneen yoo xamante ni yu bees la te yooyu moom moo koy créé boobu moo tax dina doy di siyaar